alors suñu mbokk internet yi tey ñu ñëwaat suñu ñaareeli numéro di waxtaanee yan méthode mooy yi nga xamante ni existé na pour nit ki mën a gagné xaalis ci wàllu cryptomonnaie donc je pense que pour ñi nga xamante ni jot nañu seetaan premier numéro bi wax nañu lan mooy cryptomonnaie lan moo ko tax a jóg ci circuit bi nga xamante ni cryptomonnaie jaar na ci ba egsi fu mu yegsi donc euh, suñu waxantee dëgg te aussi cryptomonnaie heure bu ñu ko waxee rek xel yi day dem ci xaalis voilà nit yi di wax gagné naa gagné wu ma li ma bëri na et cetera donc tey suñu deuxième numéro dañuy jël quatre méthodes yi nga xamante ni mooy méthodes yi gën a fréquent mooy maanaam euh, ñeenti anam yii nii mooy ñeenti anam yu gën a fréquent yoo xamante ni képp koo dégg mu ne la gagné na xaalis si crypto ne bu dee gagné na rek. si ñeenti méthodes yi benn la ci utiliser pour gagner xaalis donc bu si nekk dinaa la expliquer tey lan mooy spécifique am lan mooy nan nga ko mën a utiliser donc lu mythe bi ma bëgg a dindi ci bopp ñu bëri rek mooy ñu xam ne ne peu importe niveau boo mënti am niveau boo mënti am am nga sa place ci wàllu crypto-monnaie war nga mën a doon koo xamante ni mën nga si gagner xaalis mën nga ko def liggéey parce que aussi crypto-monnaie dafa doon moyen boo xamante ni dencukaayu xaalis la liberté lay prôné et cetera ci man mais pour wax la ne la rek am nga sa place man miy def vidéo yi nga xamante ne depuis ñaari at tollu na si ren 90 pour cent si samay activité mu ngi tourner autour de la crypto pour ñi nga xamante ne aussi dañuy seetaan seen bi je suis jamais allé à l'école maak yow ñooyee bu nekkee da ngay jàpp que ne amoo niveau bu bëri wala sa xam-xam non dew ma école ay tout man mi wax ak yow mosoo dem école et aujourd'hui partout dans le monde dañu may invité pour may wax ci wàllu cryptomonnaie donc suñu seetaanee intro bi 30 secondes dañuy ñëw maintenant leeral si ñeenti point yi ñeenti anam yi bu si nekk yow nan nga ko war a mën a utiliser pour commencer di gagner xaalis ci cryptomonnaie yi ak internet d'une manière générale merci beaucoup merci ci xaar bi mais balaa ñuy commencé waxtaan bi boo man maa ngi tudd encore Amadou Seck fondateur u Vision d'Afrique si seen bi dañuy def ajjuma bu jot dañuy partager benn vidéo boo xamante ni ah, ci olof lay doon pour wax ci mbiru crypto-monnaie c'est pas la première fois depuis maintenant deux ans aujourd'hui chaque semaine dinaa partager deux à trois vidéos yoo xamante ni ça parle de l' de l'économie numérique ça parle de mais musuma woon di def vidéo en wolof bien vrai que si olof bi laay gën a nekk à l'aise et tout ça mais bon peut-être ñi ñuy seetaan ñu ci ëpp duñu sénégalais mais comme am na ñu bëree bëri ñu commencé woon di wax ne c'est que vidéo yi am na solo mais boo doon def aussi de temps en temps des vidéos ci olof dina gën am solo pour que ñi nga xamante ni aussi ñu ngi fii ci Sénégal te si mm, olof bi la ñu gën a mën a comprendre dina am solo moo tax avec euh, beaucoup de discussions avec équipe de Vision d'Afrique ñu décidé àjjuma bu jot à 19h ñu partagé benn vidéo boo xam ne day wax ci business en ligne crypto monnaie et su dee yooyu intéressé na la mun nga abonné ndax àjjuma bu jot di nga am benn vidéo boo xamante ni dalay leeralal si mbiru cryptomonnaie donc comme du ñu dugg si waxtaan bi tey dañuy wax ne ñeenti façon yi ñeenti anam yi mooy ñeenti anam yi nga xam ne moom la nit ñi di utiliser ci cryptomonnaie pour gagner xaalis première bi mooy li ñu naan holding ah première méthode moom la ñuy wax holding donc holding mooy lan mot anglais la souvent am na yenn terme boo ko déggee ci crypto monnaie dafa nekk ay mot anglais so mun nga jàpp ne si compliquer mais y a rien de ko sauf da nga déggul anglais pour traduire ko mooy stocker c'est-à-dire que jënd garder. garder c'est-à-dire que voilà pour mu gën a yomb euh, foo déggee ñuy wax holding sur la crypto mooy nga jënd ay mbir garde ko à long terme donc euh, méthode bii nii ñi siy gañ xaalis yëpp mooy ñi nga xamante ne dañuy jënd ay crypto-monnaie ñu garder ko pour euh, le mois prochain ou bien dans deux mois ou bien dans quatre mois ou même dans un an ou bien même fii ak ñaari at parce que crypto-monnaie yi nga xamante ni day door a génn sur le marché li muy jar du bari tey jii ne am na crypto-monnaie yoo xamante ne jarul sax cinquante francs 50 francs CFA am na cryptomonnaie yoo xamante ni tey jarul sax 50 francs euh, pour benn parenthèse boo xoolee bitcoin bi muy door am bitcoin bi nga xam ne ni tey jii fi may waxee yow mu ngi jar lu ëpp 12 million bi muy door a génn 2008 jaruloon lu mat 100 francs CFA 100 francs c'est-à-dire que boo amoon 1000 francs mënoon nga ci am lu ëpp 10 et aujourd'hui benn bu si nekk jar na lu mat 12 millions donc ci processus boobu noonu nag le bitcoin le cryptomonnaie di évoluer wax naa la ko semaine bi passée foo déggee bitcoin crypto-monnaie la parmi si biir crypto-monnaie yi nga xamante ne yëpp am na donc bien vrai aujourd'hui bitcoin mi ngi jar 12 millions mais am na yeneen crypto-monnaie yoo xam ne comme ni ma ko waxee li muy jar matul 100 francs donc nan ngay def si holding bi da ngay dem yor sa mille francs yor sa 10 000 yor sa 25 000 yor sa 30 000 ça ça dépend de vous euh, li ma bëgg a leeral aussi si point bi crypto-monnaie amul intermédiaire fépp foo déggee kenn comme Amadou Seck bu lay wax ne la jox ma sa xaalis ma jëndal la wala ma gardel la ko nekkatoo ci cryptomonnaie yaa ngi si lu ñu naan investissement en ligne avec des intermédiaires c'est quoi ñu bëri ñoo xamante ne xamuñu dañuy jël seen xaalis dugal ko ci benn plateforme benn système d'investissement quelque temps plus tard système bi yàqu ñu ne cryptomonnaie affaire arnaque la fekk ñoom mosuñu nekk ci cryptomonnaie donc amoo benn intermédiaire donc fii ni première méthode bi mooy nga am 1000 francs 50 000 loo mën ci am amul aussi obligation amul montant fixe amul montant limite loo mën ci am de 1000 francs à 1 million mun nga jënd ay quelque crypto yoo xamante ni coûté wul dara nga garder ko si say plateforme donc je pense que suñu procès numéro day nekk si lan mooy plateforme ndax ci plateforme yooyu noonu nga mun a garder crypto monnaie yooyu noonu pour que suy jël valeur yow yëpp yaa koy contrôler sa bopp tey jii ak sama téléphone nii. su ma jëndee ñetti cryptomonnaie yu jar benn bu nekk fukki dërëm damay am si sama téléphone 150 mais plus que cryptomonnaie bi di jël valeur plus que 150 yi di yokk 200 300 500 ainsi de suite à tout moment mun nga ko retirer par contre aussi de la même façon que cryptomonnaie di jël valeur noonu lay aussi amee de temps en perte de valeur c'est pourquoi balaa ngay jënd dafa am solo nga def ay beaucoup d'analyse yi lay permettre nga am benn amut amul certitude à 100 pour cent mais mun nga am benn probabilité à 80 pour cent que ne cryptomonnaie yi nga jënd day gën a yéeg day yéeg et cetera comme bitcoin ni mu ko defee ethereum ah BNB euh, beaucoup de crypto monnaies yoo xamante ni dañoo quitter moyen de cinquante francs cent francs mille francs deux mille dix mille ba egg si ay un million cinq cent mille cent mille deux cent mille et cetera donc c'est possible loolu mooy première méthode bi nga xamante ni ñiy def crédit trading crypto monnaie moom la ñuy utiliser mooy holding soxlawul aussi benn niveau bu extraordinaire pour nga mën ko def même boo amul benn niveau même boo musul jàng école même boo musul dégg luy crypto nga ko def loolu lenn rek moo ci ëpp solo mooy nga ubbi sa compte boo ubbee compte adresse mail bi ngay ubbee compte bi ak mot de passe bi nga garder ko fu sûr loolu kese la amul dara lu compliqué wala lu extraordinaire boo demee ci yenn sociétés yi yenn entreprise yi nga xamante ni seen liggéey la mun nañ la comme Vision d'Afrique tey boo fi ñëwoon laajuñ la dara mun nañ la ubbil compte si Binance ou Elbank loo yor 1000 francs 50 000 100 000 loo yor mun nañ la aider ba nga investir ko ci cette partie la et après ngay xaar peut-être que demain ou après demain et lu ci gën a avantageux mooy heure bu la neexee mun nga retirer xaalis boobu noonu heure bu la neexee à tout moment retirer xaalis ci les crypto moo gën a yomb parce que actuellement sax avec l'avancement des technologies avec les choses voilà engouement bi muy gën a am à travers Wave Orange Money tu as la possibilité de retirer ton argent sur ces plateformes donc voilà première méthode bi nga xamante ni mun nga ko euh, mun nga si def pour euh, gagner xaalis sur les crypto-monnaies deuxième méthode bi mooy lu ñu naan staking staking aussi toujours c'est des mots anglais parce que le trading aussi euh, bon c'est des trucs yoo xamante ni ça vien des des anglais comme États-Unis et cetera on parle de Wall Street loolu moo tax mots su si bëri day ñëw en anglais mais quand on parle de staking pour simplifier mbir yi mooy épargner soo déggee staking quelque part c'est c'est amul dara lu compliqué mooy épargner si plateforme yi nga xamante ni pense que plateforme yi am na solo solo boo xamante ni sax je pense que moom laa waroon njëkkee mais semaine prochaine dinañ def benn vidéo sur les plateformes plateforme mooy say portefeuille mooy fi nga xamante ni nga mën a jaar pour def lépp li nga bëgg a def sur les cryptomonnaies donc plateforme yooyu dañ lay proposer boo amee 20 000 wala 30 000 wala 50 000 ci sa compte si benn cryptomonnaie parce que si biir plateforme yi da nga am possibilité am ñoom dañ lay proposer disons damay jël exemple ci benn cryptomonnaie bu bitcoin comme xam naa ne moom la ñu bëri di gën a xam soo amoon tey bitcoin BTC nga am fa sa cinquante mille équivalent wu cinquante mille francs fa Binance plateforme bi nga nekk mun na la proposer ne la yow de soo jëlee cinquante mille bi bàyyee ñu ko ñun ñu liggéey si lu ñu neex ba trois mois wala deux mois wala quatre mois mun nañ la proposer x centage pour pourcentage mun na nekk 10 pour cent 20 pour cent et cetera soo jëlee sa 50 mille nga bàyyee leen ko boobu ñoom ñu liggéey si euh, su contrat bi jeexee dañ lay delloo sa xaalis ak euh, profil yi nga xamante ni moom lay àndal. am na yeneen ak yeneen yoo xamante ni mu ngi ci biir mais je pense que dinañu def je pense que même comme tant que débutant. ñi nga xamante ne dañuy a découvrir univers crypto monnaie ce serait vraiment important ñu jël étape par étape bu si nekk ñu jël ko développer ko étape par étape voilà donc staking en tout cas c'est un point très important sur le marché boo ko maîtriser épargner la si biir plateforme yi mais épargne boobu noonu dañu la si def ay rémunération yoo xamante ni c'est très très intéressant troisième méthode bi nga xamante ni am na ñu bëri ñoo xamante ni man xam naa leen ñu siy gagner xaalis mooy lu ñu naa revente de la crypto-monnaie donc point boobu noonu soxla na nit ki am tuuti connaissance ah c'est pas quelque chose d'extraordinaire ah il suffit juste que ñu former la en moyenne de 30 minutes une heure de temps 24 heures maximum tu maîtrises ça parce que am na yenn plateforme mun nga fa dem di jënd crypto-monnaie di jaayaat si biir plateforme et tu fais des profits c'est très rentable l'une des je pense que ñi nga xamante ni c'est la première fois ñuy dégg affaire crypto ñuy a gëstu am que ngeen def ay numéro ci Binance lay doon Binance actuellement bokk na ci plateforme yu gën a mag ci mbiru cryptomonnaie ci àdduna bi donc moom moom mun nga fa dem di jënd ay cryptomonnaie mun nga fay jaayaati cryptomonnaie lu ñuy wax peer to peer personne en personne yooyu yëpp dinañu si ñëw étape par étape di ko développer chaque vendredi donc revendre la aussi mun nga doon koo xamante ni da nga naan yow sec ak keneen ak keneen boo leen amee crypto mun naa ko jënd mais boo leen soxlaa mun naa leen jaay gis naa même ñun aussi de Vision d'Afrique dañ koy def képp koo xamante ni dafa soxla mun nañ la ko jaay quantité boo am aussi pour jaay ko mun nañ ko jënd donc c'est point boo xamante ni point bu ama am solo la sur marché trading de la crypto-monnaie dernier point bi nga xamante ni moom la ñu bëri di utiliser man aussi je me spécialisé sur cette partie actuellement nii mooy trading actif moom la ñuy wax spéculation c'est-à-dire que maintenant bu ñuy wax trading en tant que tell loolu moo ko tax a jóg maanaam tu es capable d'entrer sur le marché nga am 100 dollars wala 50 dollars wala 100 dollars et dire que man balaa suba wala balaa une heure wala balaa deux heures bëgg naa gagner 50 wala 100 wala 200 dollars ci journée bi loolu la ñuy wax spéculation cette partie nag dafa laaj maîtrise partie yi ma wax yépp comme holding soxlawul formation bu poussée comme staking comme revendre la crypto mais spéculation pour que nga def ko il faut que nga maîtriser ko parce que am na bu boobaa lu ñu naan ay analyse fondamentale analyse technique analyse fondamentale sax dinaa def plusieurs vidéos yoo xamante ni dina leen permettre ngeen xam c'est quoi analyse fondamentale ak fan la ñuy dem pour mun a def ay analyse fondamentale yu am solo donc voilà quatre méthode yi nga xamante ne ñi nekk ci wàllu crypto dinañ ko utiliser pour gagner xaalis mooy première holding mooy jënd ay crypto pour être simple hein souvent je vais peut-être damay essayer parce que mais su ma utiliser les mots exacts yoo xamante ni moom la ñuy wax ci marché du trading ma ñëw rek wax la ne la stocké peut-être demain mun nga dégg holding doo xam voilà foo déggee holding du dara lu dul jënd ay cryptomonnaie garder ko foo dégg staking du lenn lu dul épargne ci ay plateformes foo dégg voilà revendre la crypto je pense que c'est clair voilà loolu peut-être ñun ñoo ko créé ñoo xam ne ni un business rentable la ci biir ñu koy def foo dégg spéculation le trading actif mooy spéculer trading actif koo dégg mu ne damay trader maanaam day jënd ngay jaay bu nekkee seetaanoo premier numéro bi nga xamante def naa ko pour expliquer la defaral lien bi fii mun nga a mën a comprendre d'habitude que bu nekkee da nga tombé bii suñu deuxième numéro la am nañ suñu premier de description bi premier numéro bi nga xamante ni defoon naa ko pour expliquer c'est quoi le trading lan la ñu war a mën a utiliser crypto-monnaie lan mooy njëriñam bii suñu deuxième numéro la muy ñuy wax ci wàllu yan façon am na nag plusieurs méthodes yoo xamante ni mun na la permettre ngay gagner xaalis sur le marché du trading je pense que suñu prochain numéro dinañu dem si yooyu noonu mais prochain numéro muy troisième numéro parce que là c'est deuxième numéro suñu troisième numéro dina nekk numéro boo xamante ni on va parler des plateformes parce que c'est important parce que balaa ngay rentrer une fois que nga comprendre tout c'est les lu lay li ngay njëkk soxla mooy le plateformes yi lay permettre nga dem pour créer sa compte e je vais faire des captures c'est-à-dire que vidéo yooyu dina doon yoo xamante ni damay def ay capture d'écran pour montrer voilà partage d'écran autant pour moi pour montrer fii ngay cliquer fii ngay cliquer pour créer sa compte une fois que nga créer sa compte même foo mënti nekk si àdduna bi ak vidéo yi di ko mën a dinga ko mën a def et sans ngay besoin ay aide yu bare bëri donc voilà la vidéo loolu mooy vidéo tey bi donc euh, dis-moi ce que vous en pensez sur les commentaires euh, voilà ça fait deux ans je partage des vidéos sur YouTube euh, on a plus de abonnés peut-être xam ngeen ko sur Facebook presque cent mille abonnés. mais au Sénégal beaucoup de personnes me disent il faut faire souvent de temps en temps des vidéos en wolof depuis plus de an je disais toujours que voilà des gens qui nous suivent Euh, depuis un bon moment dañu ne aussi c'est important ñuy def ay quelques vidéos et pour le moment c'est une seule vidéo par semaine c'est tous les vendredis à 19 ñu partager benn vidéo boo xamante ni va parler de la crypto donc su nekkee crypto business en ligne gagner de l'argent sur internet yooyu thématique doon na loo xamante ni intéressé na la vous êtes au bon endroit mun nga abonné activer les notifications pour que chaque fois que ñu partager benn vidéo nga mën a jot notification bu lay wax la am na benn vidéo buy wax si des mécanismes à gagner de l'argent sur internet donc voilà maa ngi leen di gërëm bu baax di leen jox daran euh, rendez-vous àjjuma bi ñu dëgmal à 19h incha allah mun ngeen ko partager avec seen i xarit si seeni group pour que ñoom aussi ñu mun a xam ne les business en ligne mun nañu ko def bien vrai que bu nekkee du français wala en dégguñu français wala anglais et cetera dinañu def de telle sorte que on va simplifier les choses pour que chacun d'entre vous puisse tirer profit sur internet merci beaucoup à la prochaine ciao